c'est Papila Mopé, le directeur général du FERA. Vraiment, c'est c'est un frère, c'est un ami. Donc, qui nous a beaucoup accompagné la commune de dalifor Foray. yéen tamit ngeen nekk ay agent exemplaire, moo tax une commune nekk commune modèle ku nous da fekk chaque matin ngeen sol seen tenue di fallait mu mbedd bi mbedd yi set mais loolu ñun buñ ko grâce au FERA. bi ñu ow Green Star laa moom dama bëgg ngeen a donc ñun dañ après ñun bu commencé site bare donc am na sukkur koor bu neex bu mu leen indaale après bu ñëwee foofu fiche de paie. Njumat gaa ngi nii ñu ngi ñaanal maire ci tur mag dëkk bi yëpp nag ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla barkeel jërëjëf. président Macky Sall rek président Macky Sall rek Macky Sall kese. Now, now I'm going to take it. presque mooy il est le chef de orchestre tey di di yow surprise la ele yow mais c' est le directeur général du FERA moo é permettre ñu defal ñu def échange visite bi waaw mi ngi laaj sax ndax population bi kontaan nañ ma ne waaw xaaral kii moom boo ko laajee dina la wax waaw dina la wax exactement. waaw waaw waaw. Ok. Maintenant, nous avons la route est, est, bien, est bien, bien utilisée, quoi. Vraiment, c'est très bien utilisé. D'habitude, mon boudjak, c'est comme nous déjà. Ok. Finalement, normalement, nous nous sommes mieux, mais après, nous sommes mieux, quoi. Sans dialogue, quoi. Nous sommes mieux. Nous sommes mieux. non mais yéen la rek yéen la rek yéen a ma jàpp. non yéen la rek sans vous moom donc. sant yàlla sant moom vraiment taxaw na ci quoi waaw aussi. sant yàlla waaw bu njëkk bi moom sonal na ko. Hmm. trop quoi. sant yàlla juróom moom ba fuloo mu ne juróom. ok da nga quatre quatre sax juróom. carrément maintenant si moom kenn du ko lay wax. très bien macha allah sant yàlla bu baax. léegi nag kii ñu accompagné ñu comme yow la ñu kii yow kay. <laughs> yéen yóbboo ko woon de ah. c'est ça ah, waaw waaw waaw waroon nañu ko yéen la rek bu ma amee fit wala ma am doole parce que ñoom saa yu ma soxlaa ñoo koy teg loxo parce que lii nii tey ñu bëri bëggoon nañu. donc ñu bëri nañu ko gën a sonal chaque jour mi ngi sa kër. waaw waaw dañu fabee ak yooyu chaque jour mi ngi sa kër. mais ñu ngi ñaan yàlla na affaire yi gën a yokku. amiin amiin yàlla yokk place bi yëpp. amiin amiin yàlla gën a ci séntu rek yàlla defal ko. incha allah waaw dañu ci veillé bu baax a baax. merci waay. you. mais mi naan monsieur le maire ma ne ko wax la DG la kay. mooy kii wu général. kii moo ñu permettre lii ñu leen defal ñu defal leen ko tey mu doon ñëw nag di visiter liggéey bi ndax population bi kontaan nañ. maaleykum salaam Fall Fall bu baax. couloir yi. couloir yi yi lay wax couloir yi suñu couloir yi lay. waaw ñaari kër yi. jàpp leen ci jàpp leen ci. jàppale leen ci on est tous lu monsieur le directeur ak suñu sët dañuy daw rek di traverser ngeen may ñu do daan vraiment kontaan ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yalla ndax li yakamti won nañ wax deug yalla kontaan ñu la moom xalaatuñ ko woon way léegi guddi bu ne dañuy suñu neex jaar vraiment suñu neex jaar guddi ak bëccëg suba ak ngoon deug yalla yàlla kontaan bu baax ngeen jàppaleñ ci couloir rek monsieur le directeur kontaan nañu bu baaxa baax ndax fii kenn ñemewu fi woon jaar guddi wallaay ñemewuñ fi woon a jaar jëkk ba buñ ne Dalifort sax dañuy kii waaye léegi dañoo bëgg ñuy wax Dalifort <laughs> Dalifort la ñu dëkk non bu jëkk Dalifort bu jëkk ba nit ñi naan fu Dalifort sàccee mais léegi dañu kontaan waaw man dañu on est fier bu ñu waaw waaw léegi ñu benn foor daal on est fier de Dali. waaw dana baax dégg na ko te danañ ci jàppale. wax dëgg yàlla ndax ki def lii suñ ko nekkul war. wax dëgg yàlla dinañu jàppale ah waaw wax dëgg yàlla danañu jàppale waaw. ngërëm ak sant rek ak kontaan. waaw waaw li leen dégg nag suñu chéri bi. waaw waaw délégué suñu chéri bi. moom suñu jëkkër yi ñoo nekkoon mari ñu liggéey ak yëpp. waaw.

ñun koy lii lañ lii la ñu ne woon ba xam ne mënuloon dem ci tali bi ñu ne ñu fii la war a yem comme ça pour ndox bi bu tawee ba xam na ndox yi di dugg. disons dañoo dañoo a ko day pour sotti pour sotti ko ci travaux nationaux ñooñu bokk saa yu visité li nga xam ne tey jii offrir nañu jërëjëf kontaan yàlla gën a yokk wér gi xéewal gi. amiin amiin amiin moo maire en charge de cette zone te it biñ fay dem dañ doon wax dali Dalifort sans sable sa buma xeye di xey ci mairie on m'interpelle fu ngeen ci toll donc comme gis nañ ne yak yaay médecin bi te maire kat lim mënoon mu ngi ci te yow boko ko mu am mën-mën kon jàppaleel ñuko ndax mu mën ño jàppaleel sunu zone bële ndax it luñ fa diggé won la kat wax ko fa fépp tant ko ne Daaru Salaam Dalifort sans sable Mor Maty Sarr Dalifort sans sable te ba koy wax it ginnaaw yàlla président Macky Sall ci yaakaar ak yéen ñi comme nag c'est l'occasion dañ koy waxaale pour nga jàppaleel ñu ko mu mën ñoo jàppale ndax bari nañ fay jafe-jafe boo ko defee nag dina la fa utal benn terrain foofu nga ñibbi si foofu benn yoon. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi jégalu monsieur le directeur di rafetlu teew bi mu fi teew. di ñaan aussi euh, maanaam confiance bi nga xam ne son excellence le président de la République Macky Sall am na ko ba dénk la lii yàlla nañ ci am ndam bu kawe sa di la remercier si aussi opportunité bi ñu offrir ñun ba ñu mën a am un emploi di si liggéey bu man ak la plupart depuis deux ans ñu ngi si ñeneen peut-être bi mooy seen euh, première année au euh, bi nga am pour mën a fexe ba ñu mën a jot euh, le dernier mois avant Korité gi suñu sañoon wax dëgg yàlla ñun même buur feraa yemoon fi tamit ñun dañoo waroon déplacé wu pour remercier parce que njukkal boobu ameel nañ la ko bu dul liggéey tamit di papa ji ngay def ñu soxla ko mais tamit bëgg nañ bëgg tamit parce que actuellement ñu ngi chômage technique bëgg nañ convention boobu tamit nga jàpp si rek jàppale waale monsieur le maire parce que fii ñu fi nekk ñëpp ay père de famille lañ ay soutien de famille lañ ay mère de famille te liggéey boobu noonu dafa nekk liggéey boo xam ne buñ soxla la mais tamit askanu Dalifort Dalifort boobu soxla na ko parce que boo xoolee benn weer biñ toog feeñ na si mbedd yi ñu ngi lay ñaanal en tout cas plein succès di la remercier di jégalu euh, ci ci dog bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ak tous ses collaborateurs adjoints au maire yi conseillers municipaux yi les délégués de quartier le collectif ak euh, les jeunes bien sûr mais aussi les, les habitants, les populations de, euh, de Dalifor Foray. Et Taïi Mom avec monsieur le maire, dit que je suis agréablement surpris. Monsieur le maire, je suis Parce que je m'a envoyé photo, mais envoyé ma photo fille, fille, ni fille, fille, fille, affaire fille, fille, ma parce que ni ma gisee woon travaux yi ak financement yu ñu jox donc commune bi pour man clôturer nañu marché bi mais dafa mous mu jël place bi nga xamni xeyna mom mo dess mu photo ko yone mako man ma ko mais qu'est-ce qui se passe à Dalifor and ak sama sama équipe ñu ñëw fi mais li nga xamni mom la daan dégg ci Dalifor Dalifort eh, parce que ñu ñu mako trop tamit moy Dalifor donc euh, inondation hein, donc euh, ak les li nga xamni moy mooy cadre de vie donc nous mel tay bama ma man lénen la gis sérieusement euh, j'ai vu vraiment ben dalifor fort nga xamni qui est dans la modernité vraiment qui évolue positivement vers la modernité et lolu am solo la am solo la di di féliciter donc M. le maire féliciter aussi les délégués de quartier parce que pour euh, l'état, président Macky Sall décision ni dañuy appelé, donc les communes FERA bu day état day a a entretenir entretenir un perpétuel recommencement donc développement mënul am foofu et vraiment donc dis euh, nañu les populations étaient très contentes et di dalal aussi xelu xelu xelu monsieur le maire parce que li nga xamni ni Fera moom looloo ko taxaju te président de la République Macky Sall donc ba mu gisé ni pratiquement que jeunes yi ñu ci ëpp ñoo ngi ci liggéey mm-hmm. donté donc formation bi ak métier bi donc amna ci solo mu lekkolo li nga xamni mom moy FERA lu muy def mu ni FERA comme que entretien routier lay def te lolu haute intensité de main d'œuvre la mun nañ ci dimbalé ndaw yi donc programme mu Macky Sall du programme kenn donc ci lolu lay jël ay copar donc jagleel que mairie donc pour ñu recruter ay jeunes. hein pour que def entretien des donc tey jii eh, vraiment. Euh, population yi fu jaar yépp wax nañu jambarté en tout cas jeunes yi di lancer un appel rek pour jeune yépp yi nga xamni gën nañ leen ci programme xey ndaw yi ñu xamni liggéey mo tax ñu jël leen parce que état bu débourser ay copar dila fay salaire salaire bokay mérité moy da ngay liggéey donc di leen ñaaxaat bu baax ci walu liggéey bobu non ñu xamni ni y a pas de sot métier ku nekk ci société bi amna li nga xamni ni nga fa taxaw donc té gaji sa sa dignité et convention wu euh, Dalifort jeexoon na je pense il y a un mois ou deux mois mais quand même euh, daf nu nekkoon ci ay saytu parce que tamit programme bo ci doxalé mu nekk programme bi nga xamni chef de l'État def noonu ñetti at la donc ñu dem deux ans il faut que ñu évaluer ñu xol lan mo ci baax lan moo ci gën a baax wala lan moo ci sooxe pour gën a dem ci kanam amoon na lu ci sooxe moom moo tax ñu woon tuuti pour évaluer mais defe naa ni jamono googu yëpp léegi pare nañ ka moo tax fii léegi le 2 mai incha allah rabbi donc daa ngeen di commencé. convention avec. convention avec avec la la mairie. donc daan ko signé lu mu gën a ci fan yi ñu ñëw comme ça le 2 mai donc ngeen reprendre service té tamit amna ay arriérés bien sûr euh, de salaire bi mu constaté ña xamni ni euh, je pense ñaar la wala ñatt wër donc euh, ci walu bobu ñoo ngi lëkkaloog ak ministère des finances ba nga xamni inshallah incha allah rabi sunu mbébét mooy ka avant Korité parce que xamna ni Sénégal pratiquement fête yoy fête yu am solo la mhm. ñi nga ni famille dañuy retrouver et c'est du social ñu def de telle manière que en tout cas avant Korité donc ngeen jot koppar yooyu li li may li may li may mujjeel li may li may mujjeel mooy que li yep li yep ñuy def wala li yep président de la république di def defu ko lu pour ay sénégalais ay sénégalais xooluñu par parloo bi xooluñu kii fii la bokk wala fële la bokk kii xeet bii la bokk wala kii dafa xees wala dafa ñuul sénégalais nga gis nañ ni donc ni lépp li nga xam ne war nañ ko def pour njaboot gi nekk ci jàmm pour dëkk bi nekk ci jàmm pour que nit ki di liggéey di ñaq di jëriñu nii lii sama ñaq la donc te loolu mooy rôle président de la république mu jéem ko def jéem boobu nag ñuy jéem donc lu mat rek yàlla sunu borom moo koy mottali donc ñu xalaat ñi nga xam ni donc buggoon na nañu bokk ci programme bi te bokkuñu ci moom moo tax boo ngeen nekkee seen li ngeen di def da ngeen see jàpp seen fukki loxo monsieur maire li mën mi ngi koy def li mën mi koy def man moom. dama naan du toog xanaa ñaari fan ñetti fan te bombardé wu ma ay messages yu dul jeex donc nga xam véritablement donc il est là pour les populations de Il est aussi renouveler sunu coloré parce que c'est un jeune et pratiquement gis ngeen aussi renouvellement générationnel bi nga xam ni aussi président mi ngi impulser donc au niveau de la dynamique hein, donc de sa gouvernance donc loolu tamit lu am solo la mm. parce que dafay wane ni aussi encore les jeunes ont les compétences nécessaires pour yenn yi ñu jox leen ko aussi ñu dérouler ko ba pare nag am ci loxo bu set wecc et loolu donc lu am solo lo mais gërëm aussi madame le maire parce que aussi la parité est extrêmement importante lu nu dugg te jigéen nekku ci wala dugg ci loxo donc du baax et daanu xool nag bi nga xam ne moom moo des si liggéey bi bu soobee yàlla mm. bu ñu delloo bu ñu delloo bureau non non non l' <laughs> essentiel mooy que li nga nous ni moom nanu moom nanu commencé nañ koy yeggali nañ koy yeggali daanu octroyer incha rabi commune d'Alifor pour la voirie donc une enveloppe supplémentaire mais qui va dépasser bien sûr li nga xam ne moom moo si mais maintenant en conseil municipal bien avec le maire moom mooy xool fan la koy nous ñun indi financement bi nous mun mm-hmm. te lii dal na xel donc gis nañu suñuy bët kenn nettalewu moo tax incha allah rabbi euh, avec euh, nos services bu ñu demee daanu xool nuñ ci mën euh, travail bi dana àgg bu soobee yàlla. incha allah dana am leen leen luñ ci toftal. macha allah léegi nag bu boobaa yéen ngeen xool fi ngeen koy dugal. encore une fois ñu ruqaat yi nga xam ne ñu dugal lool lool loolu mooy suukaru kooru président Macky Sall pour commune de Dalifort merci Merci merci tout le monde merci monsieur le directeur général du FERA Pape Ibrahima Faye et c'est mon collaborateur Alassane Diagne Du nouveau les délégués de quartier si présent du nouveau le bureau municipal adjoint au maire yi nga a un ak aussi agent Ferraille. qui nga fait vraiment de l'Union de di di

ministre bi nga xam ne moo yor lii donc le ministre Mansour Faye ñu koy sant di ko gërëm di la ko yóbbante donc FERA vraiment donc mu accompagne ñu suñu commune donc si wàllum xëyu ndaw ñu vraiment mu jëlal ñu lu toll cent quatorze ay doomu Dalifort ñuy xëy di gontu di liggéeyal seen bopp en plus c'est important beneen bi si des ñu mu permettre ñu donc euh, amna ay manquements yu bari yu amone mu régler beaucoup de problèmes à la fois problème inondation si pavage yi ñu def ni problème accessibilité ak problème carte de vie donc je pense que ñu won espérer lu gëna a rëy non donc tay changement xar kanamu commune bu amé donc je peux dire à 70% que ni Fera merci beaucoup donc euh, nit nit nak fi amé amee fofu lay démé di ñaan wala fofu lay démé naan ling ma may dé du dolli na parce que lam fa ñam mo neex wa commune d'Alfort Foray je pense que li ñu ñam feera am na solo moo tax vraiment monsieur le directeur général donc ñu ngi réitéré waat encore une fois donc sunu sunu contentement donc ak sunu fidélité sunu engagement pour accompagner leen ci une mission bu noble leen son excellence le président Macky Sall donc dénku te ñu savons ni di réussir parce que tey lii rek fin de ko donc ñëw sur le terrain parce que liggéey aussi da nga ko tout. saytu xam exactement lan moo def ak lan moom moo ci donc donc euh, nga am service bu nga am un euh, service compétent dire ci accompagner tey lii bu Amé, je peux dire que y a la

mënuñu woon espérer lu ëpp lii weeru koor weeru njëgal weeru sant donc je peux même dire que tey ñun man day mun naa glorifier wul ni si région de Dakar maa fi recevoir le directeur général Ferra mu ñëw merci beaucoup DG merci à tout le monde